kusiwe na kusiwa da kala ñu jógee ci sali ci xale mineur yooyu nga xamante ni dañ doon cagatu di jaay seen bopp dañuy dellu siwaat fii ci beneen scandale boo xamante ne secoué na fii la toile de la presse sénégalaise muy affaire Amina Badiane Amina Badiane nak su ngeen ko déggee xel yëpp day dem ci l'organisatrice de Miss Sénégal ak kii di Fatima Dione mi fi jëloon Miss Sénégal 2020 bi nga xamante ni euh, dañ ko violé woon ba noppi mu am ci doom bu am juróomi weer bu mu expliqué scandale bi nee na biir boobu daal moom xamul kan moo ko ëmbal ginnaaw ba mu demee woon foofa ca benn hôtel bi nga xamante ni kii di une organisatrice bi di Amina Badiane moo ko fa yóbboon moom ak Alberta Diatta ak Amina Badiane ñi daje fa ak naar yoo xamante ni Amina Badiane doon leen pousse pour ñu waxtaan ak naar yi moom nee na xaw ma leen mu sëgg ci téléphone am ginnaaw loolu nag bi mu xëyee ñi waroon dem Maroc ginnaaw loolu mujj ñu dem Maroc ndaxte Amina Badiane dànkaafu woon na ko ne moom xale bu réew xam na nu muy def ak moom ginnaaw loolu la Amina Badiane waxtaanoon ak yaayam ne ko jet privé bi ñu waroon jël moom moo tardé moo tax demuñu si la jëlee woon ëmb ëmb jooju ba doom ju am juróomi weer judd ci mu soulevé fi bu mag ba nga xamante ni kii di ONG Jamra di Mame Matar Gueye porté woon na plainte contre apologie au viol ginnaaw bi Amina Badiane derne woon benn sortie bu maladroite def ko ci kaw Miss Sénégal ne fii kuñ fi violé yow la neex waaw parce que magum jëmm nga je crois que kaddu yooyu juraloon na ko musiba ba nga xamante ni association féministe yi ñoom ñëpp meroon nañu futt jog ñoom it ne dañuy def marché ñii ne dañ koy porté plainte ginnaaw loolu nag jàppale ni que kii di avocat Amina Badiane yi ñoom it génn nañ seen réserve euh, brisé nañu le silence suñu sukkandikoo tey euh, kii nga xamante ni mi ngi agrégé wu faculté des droits et avoca au barreau de Paris muy kan maître Babacar Niang mi constitué avocat wu kii di Amina Badiane di organisatrice Miss Sénégal ak Pape Mamayel Diokou muy peeru avocat bi nga xamante ni ñoom ñoo war a défendre kii di promotrice su Miss Sénégal di Aminata bajan ñu ngi réagir ci série plainte yi nga xamante ni teg nañ ko ci kaw seen client bi di Amina bajan bi nga xamante ni dañ koy ji apologie du viol déposé par le collectif des femmes pour leurs clients nee na une série de plaintes a été déposée euh, contre plaignante Amina Badiane pour apologie au viol nee na quel commentaire faites-vous en qualité d'avocat de la promotrice de Miss Sénégal avocat bi daal lu mu njëkk wax nee na nañu arrêté comédie bi nee na daal li plainte yi ñu wax lépp ay comédie la wax ku ko wax nag di avocat Amina Badiane nee comédie procédurale la du mauvais goût c'est plainte folklorique moom dem na ba traduire flank yi folklorique maanaam ñàkkal fayda plainte yi traduit par la drame du euh, entrevoir euh, le monde qu'à travers euh, ses propres perceptions narcissiques. Or, en matière pénale, il faut se projeter selon les exigences du principe de la légalité de la répression. Les propos tenus par Madame Aminata Badian relèvent peut-être d'une communication ratée. moom daal jàpp nañu que daal plainte yi ñuy wax affaire folklorique la affaire comédie la moom daal jàpp ni kaddu yi nga xamante ni Amina Badiane yëkkati na ko ne Fatima Dione képp ku ñu violé yow la neex yaa ko tey majeur nga da ngay dem porter plainte nee na daal communication bu raté la mais tuddeew ko apologie a la viol ku ko wax nag du kenn ku dul ami euh, avocat kii di Amina Badiane nee na ils ne son pas des représentatifs il ne faut pas faire l'amalgame entre apologie du viol et culture du viol moom dem na ba sukkandiku nee na bu ñu def amalgame bu ñu jaxase lépp loo xamante ni jëm na ci maanaam apologie au viol ak culture viol lan mooy apologie au viol lan mooy culture viol nee na l'apologie du viol n'est pas prévenue et punie par la loi nee na lépp loo xamante ni jëm na ci apologie viol ñu ko par la loi nee na sauf si on essaie de viser l'article 252 du code pénal qui prévoit et réprime l'apologie d'un crime ou d'un délit nee na sauf suñ ko bëggee yóbbu ci article 252 moom njëkk na ne apologie du viol du crime du délit par la loi nee na sauf ñu yóbbu ko ci article 252 comme article am na kay je crois que donc loi la ndaxte article su maanaam mooy euh, prévoir nañ ko l'article 52 du code pénal qui prévoit et réprime l'apologie du euh, l'apologie d'un crime ou d'un délit s'agissant de cette infraction les propos apologétiques doivent consister en une approbation d'un acte criminel ou délicieux. Plus précisément, c'est le fait de justifier complètement ce taxe en la présentant comme normale et illicite, en faire éloge et en la représentant comme glorieux et mériter l'apologie du crime de viol, se fait l'éloge et se présente comme glorieux en méritant l'apologie du crime du viol, se distingue de la culture du viol qui consiste à banaliser les viols, ce qui n'est pas constitutif. kon ñoo ko déggandoo li maître Babacar Niang avocat au barreau de Paris bi nga xamante ni mooy avocat kii di Amina Badiane di organisatrice Miss Sénégal bi nga xamante ni naka la qualifié maanaam plainte yi nga xamante ni euh, réseau des femmes yi déposé nañ ko contre Amina Badiane maanaam apologie au viol gis ngeen nu ko ñàkkalee fayda déterminé ko de folklorique déterminé ko de loo xamante ni Amina Badiane ni mu waxee du dara lu dul communication bu raté ma jotewul ak dara apologie euh, yool donc euh, maître Babacar Niang daal loolu la yëkkati laaj nañ ko nag ci plainte bii nga xamante ni kii di Amina Badiane porté na ko plainte kii di ko ak euh, Kader Gadji nee na te porté wul kii di Fatima Dione ak yaayam ñi nga xamante ni ñoom ñoo njëkk def ay sorties révélé ni que Amina Badiane tey moo teg seen doom lii yëpp moo leen yóbbuwoon ci benn colloque bi nga xamante ni amoon na foofu ca Diamniadio bi colloque ba jeexee Amina Badiane moo leen invité ci benn suite foofa ca hôtel Radisson bi nekk ci Diamniadio boole na nag ñetti naar moom ñett ñi nekkoon fa ginnaaw loolu nag Fatima Dione xamul lu xew bi mu jeewoo foofu daal après si la bi mu ñibbee si la commencé feebar bi mu demee ba toll ci ay ñaari weer yaay yóbbu ko Sénégal si la ñu gisee ni que ëmb am na ci moom xamul kan moo ko ëmbal donte nee na moom fa la jëlee ëmba ji jàpp nañ ko daal foofu lañ ko violé moo xam lañ ko def dañ ko drogué moom moo xam euh, dañ ko jox dara mu naan moom moo xam naka lañ def bayga ci kawam moom moo xam mais fa la jëlee ëmba ji ginnaaw ba mu génnee wax loolu kii di Amina jaan génn la lendemain def benn sortie bi mu defee sortie boobu sénégalais yépp ko ñaa lu sorti bi mu def fi ndaxte en tant que jigéen jigéen tey ne la dañ ko violé si biir viol boobu am na ci doom boo xamante ni am na juróomi weer te xamul nga waroon ko apporter sa soutien en tant que organisatrice nga kàddu boobu merloo sénégalais yi ba sénégalais yi tamit jóg mami koo def ay live ba yeneen miss yoo xamante ni ñi ngi woon ci ginnaaw ñu ragaloon sax génn ku ci nekk di def ay euh, dévoiler ay secret Amina Badiane nag deful dara lu dul porter ji plant moom nee na dañ ko calomnier alors que moom moo njëkk a toog si plateau ci ay caméra calomniser kii di miss bi di Fatima Dione xam naa ni que Fatima Dione xamul dara soo gisee amul bourse amul ay notes yu baax amul dara moo njëkk a xas Fatima Dione moo njëkk a taxaw ne Fatima Dione su ko ñu violé yow la neex moo njëkk a teg yooyu si boppam ba pare tey moom moo dem porté ji plainte ñoom ko ak ñoom Kader Gadji dama bëgg xam Sénégal ban dëkk la ñu nekk ban dëkku loi la ñu nekk ndax dafa am y a des personnes qui sont au-dessus de la loi ndaxte yàgg nañu dégg ni ah, dafa am ay influence dafa am ñu ay haute personnalité yu nekk ci ginnaam dafa am ñu koy défendre intouchable la loolu nag tey est-ce que mooy confirmé wu wala tey dañuy xooli dëgg wala xool fan la justice nekk ñu teg ko donte moom mooy organisatrice su Miss Sénégal Miss Sénégal moom moo jëlee ëmb Miss Sénégal moo nee dañ ko violé est-ce que ñoom du ñu ànd ba enquête boobu leer ndaxte ci biir événement am la ko fi la ko dalee ci événement Miss Sénégal bi ndaxte su Miss Sénégal bi jeexoon mu bàyyi ko mu ñibbi mu toppatoo ji beneen Miss Sénégal je crois que tey kenn du ci tudd turam mais moom moo ko jël yóbbu ko ci benn colloque est-ce que Amina Badiane mën na expliquer Sénégalais yi ban raison moo taxoon mu yëkkati Fatima Dione ak Albert Diatta yóbbu leen ci colloque boobu muy benn question bu ko Sénégalais yi di posé beneen question bi ci top bi colloque bi jeexee maanaam événement bi jeex na cérémonie bi jeex na lan moo tax delloowul ñoom Fatima Dione seen kër ak lan moo tax mu yóbbu leen ci hôtel bi muy beneen question boo xamante ni ñu ngi koy laaj Amina Badiane ak avocat am su dee mën nañ ñu si tontu beneen question bañ koy laaj même su dee yóbbu na leen ci ba. xëy na peut-être fa la ñu war a fanaan hôtel ku ci nekk da nga war a dem sa sa néeg lan moo tax mu ne Fatima Dione ak Albert Diatta nañu ñëw ak moom ñu dem ci suite bi nekk ak ñetti naar yooyu est-ce que Fatima Dione dafa signé contrat ak naar yooyu war leen tenir compagnie bëgg nañu Amina Dione Amina Badiane leeralal ñu loolu est-ce que Fatima Dione dafa am obligation par la force dem tenir compagnie ay naar tey quand on parle de Miss Sénégal je crois que elle est ambassadrice du donc qu'est-ce que Fatima Dione a à faire avec naar yoo xamante ni Dubaï lañ dëkk xaw ma Maroc lañ dëkk donc on veut que Amina Dione accusé wuñu la dañu bëgg tey nga def point de presse nga répondre ñu ci question yooyu ak balan lan moo doon sa objectif bi nga leen yóbbee foofu le lendemain ba ñuy jógee ci oto bi di ñibbi si ak coordinateur bi ban raison moo jox Amina Badiane tey euh, Fatima Dione war a fanaan kër coordinateur u euh, miss bi Euh, coordinateur euh, organisation Miss Sénégal bëgg nañu Amina Badiane nga répondre ñu ci question boobu ba ñu jógee foofu lu tax Amina Badiane bu mu toogee nga ne Amina Fatima Dione nga ne ko euh, xale bu réew xam naa ni may def ak yow lu tax nga ne Albert Diatta mooy nandite kon kii du nandite lu tax kii coordinateur bi wax loolu question yooyu bëgg nañu nga defal ñu ci point de presse nga leeral ñu ko pour ñu mën a xam li ma mën a wax rek mooy Sénégal la ñu nekk nul n'est de la loi fii benn loi moo fi am benn justice boo xamante ni moom moo fi éternel muy justice su yàlla lu nit mën a def tey fii ëllëg ak ci biir di ko layoo ji keroog yow mal xiyam yàgg nañu ne nag da nga am puissance ndaxte gis nañu sax benn article leeral boo xamante ni fan yële nee nañu turu Amina Badiane dafa bokk ci les personnes qui son en danger au Sénégal euh, par Nations Unies ak Union européenne loolu ku am puissance donc moo koy def wala nga bokk ci benn lobby moom moo koy def xaw ma ndax am na wala amul mais en tout cas article boobu leeral publier na ko tey Amina Badiane ban danger nga nekk biir Sénégal yow Fatima Dione bi mu génnee def sorteem yaayam génn def sorteem da toog ci plateau télévision yi dem Seneweb di jaabante fu la neex soxla woo garde corps est-ce que tu es en danger est-ce que da nga dox benn yoon ba nit woo la saaga la wala menacé la je crois que tey jël sa tour je crois que ñi ngi bëgg a jël débat bi changé ko débat bi lan la organisation mi Sénégal la turu Sénégal la ñu utiliser Euh, turu Sénégal boobu ñu utilisé Miss bi jël na ko en deux mille vingt pare na ci Miss boobu je crois tey su ko yóbbee fenn ba am ay conséquences yu ko ci fekk je crois que war a leer ci boppu askan bi rax ci dolli même viol su amul mais tey Fatima Dione na na xam kan mooy baayu doomam ndaxte xale boobu day màgg laajte ji baayam je crois que affaire Sénégal boobu il faut que yi jóg porter le combat xam na ni que nul n'est au-dessus de la loi. parce ni teg ko ci suba avocat am jóg nga taxaw ne plainte yi ay affaire folklorique la ay affaire nangam sangam la je crois que loolu c'est insulter les sénégalais je crois que tey loolu xeeb suñu bopp la nee naa leen suñu bakken bi def nañ ko addiye Serigne Saliou Mbacké pour défendre la vérité amul lu ñuy ragal amul lu ñuy tiit dëgg moom moo ñu ñor te dañ koy wax saa yu ñu fekk du ñu nangu injustice pour kenn da nga ñëw di organiser Miss Sénégal yàgg nañu organiser Miss Sénégal scandale peut-être mën na ci am te kenn du ko mais scandalu viol am na ci ba nit ki am na ci doom ba doom bi am cinq mois te gisul baayam pour la première fois dans l'histoire de l'élection Miss Sénégal ñu koy soog dégg je crois que nag nul n'est au-dessus de la loi tey ñi jóg ne dañuy marche muy féminisme bi képp ku war a jàppale Fatima Dione na jóg jàppale Fatima Dione ba noppi nga ne def naa plainte contre X contre X ne ma Fatima Dione inclure ma ko mi yaayu Miss Sénégal xam nga X kan la lañ koy defar mooy koo xamul Fatima Dione moo njëkk a def sortie vidéo am yaayam def sortie vidéo am donc on peut que se base sur ces propos yooyu bi nga génnee nga def sa sortie donc ci ñeenti propos yooyu la ñu mën a basé wu moo tax tey euh, wax ji egsi fii mu egsi ni nul nag ne au-dessus de la loi dëkku dëgg la dëkku yoon la nous demandons que justice soit faite il faut que justice soit faite il faut qu'une enquête judiciaire soit ouverte tey comme Mame Matar Gueye nu mu saisiré woon le procureur donc procureur dafa war a auto saisir wu d' abord on doit dissoudre la bi leer nañ balaa beneen Miss Sénégal am na et pourtant Amina Badiane bi muy def point de presse am mi ngi toog ci kaw wetam et pourtant mënoon nañu soutenir Miss Bale ndaxte li dal Fatima Dione xëy na peut-être moom mën na ko dal wala mën na dal keneen je crois que Sénégal dëkku dëgg la ñu toll muy Mamiko muy Kader Gadji ku ci nekk ci sa sortie moo tax ñu wax parce que tey Amina Badiane su deful woon sortie bu virulente boobu bi nga xamante ni avocat am nee na sortie bu rate la comme avocat am na sortie bu rate donc Amina Badiane moom moo ko def en public donc moom moo permettre les célébrités publiques ku ci nekk joxe xalaatam je crois que nag nul n'est au-dessus de la loi tey nag su dee dem nga ba nga jël sa tur yóbbu ko ci les personnes les euh, en danger au Sénégal yóbbu ko Nations uni wala Union européenne dëkku dëgg la ñu nekk dëkku yoon la ñu nekk nul n'est au-dessus de la loi tey loo am puissance puissance puissance su yàlla moo ëpp ñëpp loo am doole doole nit nekk sa ginnaaw yàlla moo ëpp doole ñooñu ñëpp je crois que nañ delloo si waat qualité waxante dëgg fii amul kuñ fii ragal amul kuñ fii tiit dëgg fu mu féetee dañ koy wax mu neex mu naqadi dañ koy wax ak fu mu mënta féetee Fatima John ba fi ñuy wax ak yow nii dañ koy accordel elle a été victime elle a été victime tey si innocente am tey innocente boobu mu doon moo tax tey jii lii dal ko ndaxte tey su doon innocente boobu lii du ko dal su xamoon ni que tey su demee ci colloque ba dañ koy yóbbu ci benn suite su jógee ca suite ba xëy na peut-être lii moo ko ciy fekk amaana xëy na du participer sax ci Miss Sénégal bi nga xamante ni waajuram ju góor di papam ko woon neex donc je crois que tey kooku am na fardeau bu nekk ci boppam ñu war ko jàppale ñuy wax naan dañuy porter plainte yow mais attendez Amina Badiane kan la war a porter plainte ba Badiane moo njëkk yëkkati ay kàddu yu tegg tegg ne wu tekk ci kaw Miss Sénégal mu wax ni ko ku ñu violé yow la neex te viol ñu ne amul consentement donc tey nit nag ñu mën en tant que responsable nga ne intellectuel nga nga ne yow yaay organisatrice su Miss Sénégal yow da nga war a gérer une personne da nga war a gérer ay jigéen yoo xamante ni ambassadrice ambassadrice su Sénégal la ñuy doon ba noppi ngay taxaw nga ne képp ku ñu violé la neex nga mën a am cent cinquante ans ñu violé la te doo ko tey waxtu balaa nga ne ku majeur suñ la violé yow la neex je crois que propos Amina Badiane yooyu muy yëkkati ak avocat am lii muy ñëw di traité ay plainte ñële de euh, folklorique moom it ay plainte am koy traité de folklorique ay ñoo gën a plainte yi mu déposé contre ak Kader Gadji ak contre X boobu ñoo gën a folklorique que plainte yële parce que ñële dañu défendre gis injustice ci doomu Sénégal boo xamante ne kenn xamu ko man Fatima Dione na ma ko xam Fatick la dëkk mais tey sénégalaise la xale bu ndaw la tey mënoon na nekk suma rakk mënoon na nekk suma doom mënoon na nekk doomu keneen tey ni mu doon nekkee sama doom ma koy sentir métit boobu donc noonu laa ko war a sentir ci moom donc tey sa avocat boobu maître Babacar Niang xaw ma barreau Paris la nekk xaw ma faculté agrégée à l'école de Paris la nekk mais franchement parler moom teg na li muy teg dëkku droit la ñu nekk dëkku yoon la ñu nekk bëgg sénégalais yi nag laay waxal sénégalais yi ñooy mobiliser wu def ko seen combat xam ne que kii du combat Amina Badiane du combat affaire influence la du combat ni que affaire impuissance dama am puissance wala je suis intouchable naka sénégalais yi def seen combat ba justice ñu def ko ñu xam fu wànnante di mujjee gëtam il faut que justice soit faite pour Fatima Dione il faut que justice soit faite pour Adji Sarr deux victimes la ñu muy ay xale yoo xamante ne dañu taxaw ne dañu leen violé war nañu ubbi enquête judiciaire ba mu leer nañ je crois que propos yooyu laa amoon lu ma doon tenir ci réaction bi nga xamante ni kii di avocat Amina Badiane di organisatrice su Miss Sénégal def na ko